ngir gëna a ñoŋal dëkkuwaay ndongo daaxa bu université Amadou Mokhtar Mbow CROUS bu Diamniadio ak jàppandal service eaux et forêts bu Rufisque amal na ci bésu tey bi ab njàmbootu garab foofe ci biir université bi liggéey bi fii ci euh, euh, centre des œuvres bari na dañu am euh, yoo xam ne moo gën a fës ñu koy tuddee les activités stratégiques maanaam lépp luy hébergement ñun ñooy dalal étudiants yi fii dinañ leen toppatoo aussi ku dëkk fenn di nga lekk di nga naan mais bu fekkee ne sa yaram sutante na aussi war nga dem ñu saytu la def li nga xam ne moo war waaye aussi war nañ la dëkkal ci dëkkuwaay bu mucc ayib boo xamante ne day am day set day sell am ay ay rafet si de côté décor mais côté euh, oxygène ak yooyu noonu da ciy baax. lu ëpp téeméer garab lañ fa fas yéene samp. bu dee euh, boo jógee si jàngukaay ba ba ci dëkkuwaay yi am na benn yoon bu fi ne xàll wu mag. Euh, ñu ngi koy xayma si téeméeru garab ak juróom moom la ñu war a def fii si biir def si euh, si ay palmier ak euh, beneen yeneen xeeti garab mais boo jëlee benn espace bi nekk si côté restaurant bi jëm ci côté miir ba foofu aussi war nañ fa def garab yu mag a mag yoo xam ne dafay joxe ker waaye tamit dafay taaral jëmm ki jëmm kër gi di campus bi mbay Diop di chef département bu Eaux et Forêts bu Rufisque di dikkaat ci bi bile jéego bu ñeel wàllum jaww ji. ñuy wax changement climatique parce que garab ak photosynthèse bi donc dana xam ni xam ni que ni lu mel na ay gaz carbonique yooyu moom da koy da koy transformer def ko lu ñuy wax oxygène euh, donc loolu day xeex li ñuy wax affaire changement climatique te tamit garab yi comme ni ngeen gisee fii. donc lépp loo xam ne espace vert la moom si wàllu environnement dañuy wax séquestration donc c' est des puits de carbone parce que lépp loo xam ne xeetu tooke la ay CO2 ak ay yeneen yu mel na moom yu fi nekk moom da koy téye donc par le biais donc de la photosynthèse. samp ay garab yomb na waaye entretenir ko moo ëpp solo bu ñu sukkandikoo ci mbay Diop. ci loolu mu ngi ci ñaax étudiants yi ndax jàpp na ni rek seen moomeel la rawatina ci jamono bi ñu nekk ñu nemmeeku coppite climatique bu doy waax